voudrais vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve à présider cette cérémonie qui revêt pour mon département une importance particulière. En de matériel de métrologie dont nous à la réception d'une valeur de 84 millions de francs CFA hors taxes marque un événement sans précédent dans l'histoire de la métrologie légale de notre Ce lot est constitué de jauges, étalons, de balances de précision, de mallettes de poids étalons, de densimètres, d'éprouvettes graduées et de scellés numérisés notamment. Diagnostiqué comme le ventre mou de notre métrologie, la faiblesse du plateau technique de la métrologie a toujours plombé les activités des services dédiés. Cependant, force est de constater que l'acquisition d'un tel équipement de pointe, raccordé au système international, va sensiblement renforcer les capacités de notre métrologie légale qui est en train de se positionner parmi les plus performantes de la sous-région. Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, la mise en œuvre du projet métrologie financé par le programme cadre intégré renforcé à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA, qui a permis d'acquérir ces équipements est en train de consacrer la montée en puissance de la métrologie dans un contexte d'un Sénégal futur producteur de pétrole. Coïncidence ne saurait être aussi heureuse que celle-ci. Si l'on sait que le projet métrologie ambitionne un meilleur accès des produits et services au marché international, parmi lesquels les produits pétroliers vont occuper une place de choix. C'est dire toute l'attention, par toute l'attention que j'accorde à ce projet, qui s'inscrit en droite ligne des objectifs du plan Sénégal émergent. Il convient donc de rappeler, le monde aujourd'hui est rythmé par une compétition sans précédent, où les exigences de qualité deviennent une donnée incontournable. Or, la qualité ne saurait se concevoir en dehors de la mesure. Sa sève nourricière qui tire par son caractère transversal toutes les autres disciplines. Fort heureusement, Cette préoccupation est déjà prise en compte par les agents de la direction du commerce qui n'ont cessé de s'approprier le binôme équipement de travail-formation. C'est pourquoi la formation en métrologie des volumes qui a précédé cette cérémonie de distribution des équipements est une initiative d'autant plus pertinente que les jauges constituent la portion congrue du lot à distribuer. les thèmes pointus de cette formation en théorie et en pratique. Vérification des débits des débits mètres, mètres, vérification des ensembles mesure, mesureurs routiers, vérification des instruments à piston vont permettre sans nul doute une utilisation judicieuse de ces équipements. Mesdames, Messieurs, si ces équipements ont été acquis, c'est grâce à l'accompagnement constant du cadre intégré renforcé. Cet organisme multidonateur de l'Organisation mondiale du commerce, qui s'est toujours illustré à nos côtés avec d'autres projets comme celui relatif à la compétitivité de la mangue sénégalaise. Les résultats de ce dernier, qui a réussi à multiplier par, les, par 5 les exportations du Sénégal, doivent inspirer celui du projet Métrologie. C'est l'occasion pour moi de remercier nos partenaires du cadre intégré renforcé pour leur soutien constant et de féliciter l'unité de mise en œuvre pour la bonne coordination de tous ces projets. Mesdames et messieurs, au regard de la valeur des équipements qui a entraîné de manière sous-jacente le relèvement du plateau technique de la division de la métrologie et des services régionaux, Je vous exhorte à prendre soin de ce matériel et à en faire un bon usage pour les besoins de protection des consommateurs et ceux des entreprises dans l'évaluation de la conformité de leurs produits et services, qui ont subi avec brio la formation en volume et les exhorte non seulement à les démultiplier, mais aussi à les mettre en pratique de la manière la plus rigoureuse. Dans cette perspective, L'appui de mon département vous est déjà acquis. Avant de clore mon propos pour la remise officielle des équipements, je voudrais exhorter la division de la métrologie, sous la supervision de la direction du commerce intérieur, à poursuivre ces initiatives pour qu'à la fin du projet, les objectifs de conformité et de meilleur accès de nos produits soient une réalité. Je vous remercie de votre bien aimable attention. di am kontante eh, ndaje wu mel nii bi nga xamante ne cérémonie de remise diplôme pour agent ministère du commerce yi jot a bénéficier ci formation en métrologie métrologie mu nekk lu am solo ndax boo déggee métrologie moom mooy. Euh, lii tax ñu mun a natt donc munoo waxu qualité produit te xamoon nan la ñuy nattee donc bépp produit pour mu mun a euh, faj li ñu soxla ci euh, il faut que ñu respecter li nga xamante ne moom mooy mesure yi donc ñu am division ci direction du commerce intérieur division métrologie ñu liggéey ci ak programme cadre intégré renforcé ci benn projet Euh, bu projet métrologie ba tey jii ñu am matériel euh, bu toll ci juróom fekk euh, juróom fukk ak ñett million ak li ci teg pour yokk liggéey bi gën a yombal liggéey popula agent yi donc di wax ni bu njëkk manque matériel bi nekkoon na loo xamante ne moo nekkoon jafe-jafe bu gën a tar ci direction commerce intérieur ndax mënoo Euh, defendre consommateurs yi wala nga dimbale euh, entreprise yi te amoo matériel boobu tey jii matériel boobu ñu ngi koy am ñu ngi améliorer suñu plateau ba defe naa Sénégal fu mu toll nii euh, ci UEMOA wala ci continent bi sax bokk na ci dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a am matériel ci wàllu métrologie di wax ni SIR moom moo yokk moom moo jàppale. Euh, ministère du commerce ci projet métrologie bi bi nga xamante ne mu ngi toll ci un milliard ak li tegu li ñu bëgg a wax rek moom mooy ñi nga xamante ne ñoo ngi jot matériel bi ñu gën a euh, ñu toppatoo ko bu baax ñu yokk formation bi ñu mën koo démultiplier ba ñëpp mën cee jot tasaare ko wasaare ko ba nga xamante ne ñëpp mën nañ cee eh, eh, jot mu nekk njëriñ ñëpp donc euh, di di gërëmaat siir ak suñuy partenaire ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci jàpp euh, moom mooy OMC ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy donateurs yi donc euh, di di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni euh, matériel baa ngi nii di ñaan peut-être ak partenaires yi ñu gën a toujours di renforcer direction commerce intérieur ci wàllu matériel métrologie bu ko defee lépp loo xamante ne askan bi soxla nañ ko pour. ministère bi intervenir ci rek mu mun koo def maa ngi leen di gërëm di leen di sant